daa leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram yi ñuy xibaar moo gën a fës yéene tey jii nii Sud Quotidien moom def taxaw seetlu ci élection législative yi ñuy waajal tawar ko amal na fukki fan si nii di élection yoo xam ne dafa bëri lool ay laaj yu ci war a mën a amal fi mu toll nii ñu koy waajal bu baax a baax waaye nag di xaar altine juróom-ñaari fan ci bi ñu nekk nii ngir nag commission de réception des dossiers de candidature daal di ñuy dafa am lu bëri loo xam ne kat daf cee laxasu gisuñu benn yoon boo xam ne kat am na jigéen bu def tête de liste waaye tamit liste yu bëri boo defoon dànk kat dañ leen di invalider ak tamit ñoo xam ne mënuñ bokk ci élection yi ku ci mel ni kii di Barthélémy Diaz ndaxte ay digganteem ak yoon jëm ci mbirum Ndiaga Diouf ginnaaw ay bés moo des campagne électorale bi door le soleil di ne forum civil kat mu ngi tàggat ay ñooñam ci benn atelier de renforcement waxtaan wi kat mu ngi jëmoon ci observation électorale ak ñi nga xam ne kat dañ jóge woon ci ñeent fukki département ak juróom benn nekk ci biir ne kat daanaka a pëccëxoo ak tamit jàpp gi tamit ku jege waaye tamit taskatu Sud Quotidien di fasal ne démb sax bàyyi nañ kii di Bougane Gueye Dany diffusion de fausses nouvelles ak tamit diffamation na ko loolu moo gën a fas ci yéenekaay bii di laas su ñaataango ne lépp nag jeex na ci jàmm ginnaaw ba ñu bàyyee Bougane Gueye Dany Cheikh tamit kii di moom dafa bàyyi lépp toppatu leen dara loolu moo gën a fas ci bi di Rewmi Quotidien ak tamit bés bi le jour donte bàyyi nañ ne Bougane Gueye Kader jaa ak tamit Cheikh Yérim Seck démb na dañoo tere Madiambal Diagne mu daal di génn réew mi doon ko laaj bu jëm ci wàllu passeport diplomatique neen laaj boobu kat moom nañ ko laaj policiers yi Moundiaye Cissé nekk directeur exécutif bu ONG 3D mu ngi rafetlu bàyyi gi ñu bàyyi nag ñoom Bougane Gueye Dany neen kat lii day indi ak dal ci réew mi bëgg-bëgg Moundiaye Cissé leen rek la fexe nag ba amal débat boo xam ne bu élevé lay doon moo gën nag xastante ak tamit di ŋàññante mu ngi loolu la mu multiplier ku jege nekk ci nguur gi moo tax sax des a def conférence de presse ngir joxe xalaatam ci tolluwaayu réew mi waaye tamit ñaaloogu bu baax jàpp gi ñu jàpp nag ñu nekk ci ku jëkk politique gi neen kat loolu dafay fàttale rek gouvernance su Macky Sall Sénégal nag soxlawu loolu fi mu toll nii ndaxte Sénégalais yi kat dañoo gën ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars fal kii di président Diomaye Diakhar Faye ngir rek jeexeel yi nga xam ne kat la fi Macky Sall doon amal maanaam bundu xatar ay nit ku wax lañu daal la jàpp te ci kaso bi le quotidien l'info di fësal a marre dem dañoo jóg yëngal bu baax baax Alioune Sané di coordinateur bu Y'en a marre nee na jëfandikoo yoon ngir rek xeex ñi nekk ci wàllu ku jégi te tamit lu ñu nangul woon Ablaye Wade ak Macky Sall duñ ko nangul kii di président Diomaye Diakhar Faye moom Alioune Sané nee na kat fi mu toll nii temps de grâce moom jeex na wala fajiri di fësal ne Y'en a marre moom dañoo mer lool ci l'observateur Alioune Sané di fësal ne sénégalais kat dañoo sonn lool fi mu toll nii ndaxte kat weddi chiffre premier ministre warul lay jàpp ci wàllu reddition des comptes moom bay ñaamu ci guddi goo xam ne bër setagul la kii fi nekkoon ministre ci temps Macky Sall nag moom dafa nekk objet benn procédure ci réquisition bu section bu recherche bu Colobane ñaar fukki fan ak ñeent ci weer septembre ba la génn nag ci instruction procureur bi gendarme Colobane yi nag bindoon nañ bataaxal jébbal ko président chambre des notaires ngir rek liñ bëtt lu jëm nag ci ay création société bu Mame Mbaye Niang Mame kat ñu ngi koy bàyyi gët bu baax loolu moo gën a fës ci yéen ak ab libération tamit l' observateur wàllu tàggat yaram ak équipe Pape Thio ak Teddy Pellerin kat ñoom ñooy yóbbu équipe bi troisième quatrième cinquième sixième journée éliminatoire CAN 2025 loolu Sud Quotidien moo ko xamle waaye kat Mayacine Mar moom da leen jàppale décision boobu nag dañ ko génne tey jii waaye tamit xamal tamit yan football lañ tànn ci ñaaru jàngante yi Sénégal war a amal digganteem ak Malawi loolu nag fukki fan ak benn ak tamit fukki fan ak juróom ci weeru octobre bi ñu lu jëm ci ñaari jongante yooyu le soleil di fësal ne kii di Boulaye Dia Crépin Diatta ak Noah Fadiga ñoom dinañ jësiwaat ci groupe bi waaye Edouard Mendy ci wàllu bi moom sax tànk bi dafay métti fi mu toll nii examen supplémentaire yi nag génneegul dara moo tax ñu jàpp ne kat jiixi jaax am na nag ci bokkam ci ñaari jongante yooyu ñu des ba tey ak waa soleil ñuy fësal ne ginnaaw nag ba ñu fësale ne renouvelé wuñ contrat Aliou Cissé nag am na ñu bëri ñu àndoon nag moom kat jóg indi ko ay seede yu rafet bokk na ci nag ay anciens joueurs ak tamit ñu bees yi ñoom ñëpp kàddu yi benn la Aliou Cissé moom ku neexee liggéey la waaye tamit def na parcours boo xam ne kat kenn dootu ko fàtte que fii ci biir Sénégal ndaxte moo fi njëkk a indi Coupe d'Afrique des Nations de football. moo tax l'info ne fal gi ñu fal Aliou Cissé ci équipe nationale bi moo tax nag ba sélection africaine yu bëri commencé nag di wóolu seen doomu dëkk bàyyi nag sorcier blanc yi mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen incha allah rabbi

par le Sénégal depuis 1963, ce scrutin est marqué par un certain nombre de particularités, dont l'absence de femmes investies comme tête de liste, mais aussi les risque d'invalidation de plusieurs candidatures pour inéligibilité, dont celle de l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale, le quotidien national Le Soleil informe que le Forum civil outille ses membres avec un atelier de renforcement de capacité sur le processus électoral. Les discussions ont porté sur l'observation électorale à long terme au profit des membres et d'autres acteurs qui viennent des 46 départements du pays. Ces élections législatives se préparent dans un contexte particulier, marqué par des de certains opposants. Sud Quotidien nous apprend que Bougane Guedani est libre, poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Il a été libéré après son face-à-face avec le procureur Cheikh Yerim et le chroniqueur de CNTV Kader Dia ont également été libérés après le face-à-face avec le procureur. Libération des opposants et journalistes arrêtés, l'État lâche du lest, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien LAS. Tout est bien, qui finit bien. Les autorités en libérant Bougan Gaydani, Cheikh Yerim Sek et Kader Dia. Poursuite contre Cheikh Yerim Sek, Bougan Gaydani, le procureur arrête tout, écrivent nos confrères du quotidien Réumi. Le ballon se dégonfle, le procureur classe les dossiers sans suite, renchérit Besbi le Délit d'opinion et répression, liberté sous contrôle, c'est le titre qui barre la du quotidien. Le quotidien, Madame Baldiane empêché de voyager, les dossiers de Cheikh Yerim Sek, et Kader Le directeur exécutif de l'ONG 3D a salué la posture du ministère de la Justice et le retour à la sérénité. Selon Moundiaï Sissé, les parties prenantes, tant l'opposition que le pouvoir, doivent élever le débat en privilégiant les idées plutôt que les invectives. Le mouvement Yanaman a fait face à la presse hier pour donner son point de vue sur l'actualité. Selon Sud Quotidien, Alusane et ses camarades sont sortis de leur mutisme pour, disent-ils, dénoncer ces arrestations Les Sénégalais ont voté le 24 mars dernier pour un changement qui doit s'accompagner par la rupture à l'entrave aux libertés des citoyens et la pénalisation des délits d'opinion. Il y en a marre, sort du bois. C'est le le coordonnateur du mouvement, il est temps d'alerter sous les régimes de Wad et Macky Sall ne saurait l'être pour Diomaye. Yann Amar recadre les autorités, écrivent nos confrères du quotidien Le Quotidien. Yann Amar rouge de colère, renchérit Walfou Quotidien. Alun Sané déclare dans le quotidien L'Observateur que les Sénégalais sont fatigués. Depuis quand, contredire un Premier ministre est devenu un déni au Sénégal Réduction des comptes selon Besbi le jour, ça se complique pour Mambaignan. L'ancien ministre sous Macky fait l'objet d'une procédure de réquisition de la section de recherche. Le 24 septembre dernier, sur instruction du procureur, les gendarmes de Colobane ont saisi la présidente de la Chambre des notaires au fin de leur fournir des informations complètes sur d'éventuels actes de création de sociétés appartenant à l'ancien ministre Mambaignan auprès des cabinets Mambaïnia, dans le viseur de la section de recherche de Colobane, écrivent nos confrères du quotidien Libération. Le parquet financier traque les sociétés de Mambaïnia, ajoute nos confrères du quotidien L'Observateur. En sport équipe nationale, Papchao et Teddy Pellerin vont assurer pour les 3e, 4 et 6e des éliminatoires de la Cannes 2025 selon Sud Quotidien. Le directeur technique national Maya Silmar viendra en appoint. Selon les sources du journal, la décision a été prise par la Fédération sénégalaise de football et sera dévoilée ce vendredi au grand public en même temps que la liste des jours retenus pour la double confrontation contre le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Pour ces deux matchs le quotidien national Le Soleil annonce les retours de Boulaïdia, Crépin Diata et Noah Fadiga. Cependant, Edouard Mendy est incertain. Victime d'une blessure musculaire des examens supplémentaires n'ont pas informé de l'étendue de la blessure et d'une éventuelle indisponibilité, mais des doutes planent pour sa participation aux deux prochains matchs du Sénégal. Nous restons avec nos confrères du Collège national de Soleil. Après l'annonce du non-renouvellement de son contrat, plusieurs de ses anciens collaborateurs, notamment les anciens joueurs de l'équipe nationale, se sont confondus en témoignages affectueux à l'endroit des cadres aux nouveaux arrivants, ils ont été nombreux à saluer le parcours remarquable du technicien sur le banc sénégalais. Il a marqué son époque pour avoir été le premier à gagner une canne avec le Sénégal. Selon le quotidien L'Info, la nomination de l'UCC comme entraîneur principal de l'équipe A avait suscité de l'engouement. Elle a aussi un impact sur plusieurs sélections africaines qui ont opté pour la préférence nationale. Merci, c'était tout.